Mmh. C'était en Europe à la télévision belge c'était en 1979 boobu yéen ñëpp kenn ci. Mhm. def c'est débat non non vous pas le débat. Mhm. <laughs> vous en êtes des corollaires. mais vous n'êtes pas le débat lui-même. Mhm. le débat c'est l'opinion de l'invité sur ce que se dit pour enrichir le reste. et non pas. Euh, un boo xam ne un duel. Euh, non c'est pas un duel man maa doon joxe sama xalaat rek comme ñeneen ñi quoi. Ah, d'accord mais man euh, ko indi. Mhm. bàyyi c'est une question. bàyyi radiyallahu anhu am na ku ñëwoon di ko nettali benn gént. c'est une question. dégg di ko di nettali gént gi bi mu paree mu ne waaw. loolu lu mu tekki daf ko ne nii rek dóor ko ne ko sa gént gi dafa gudd kat dafa gudd kat <laughs> gént gént bu ñu koy déter une heure de temps loolu dafa gudd gént une minute doy na ci parce que même pas 30 secondes li ngay gént ay kat ni ngeen guddale ji nga nag tous les francophones feebar boobu ci français lañ ko jëlee moo tax ñu leen tuddee le coq le coq gaulois. dañ kokoriko kokoriko. non Issa ñëwal Issa ñëwal ak sa question Issa ñëwal lu gàtt nit ñi dégg ko mu jàll. Mm-hmm. parce que loolu dafa mel ni yéen da ngeen euh, xeeb les téléspectateurs. oui euh, ci biir téléspectateurs bi yow lay laaj ci ne nii am na ñu leen gën a informé gën leen a xam lu ngeen xamul. di déglu yéen a ngi leen di euh, kilo ñuy zappé. waaw bu ñuy zappé rek sa parce que dañoo bëgg a zappé ñu zappé. non man waxuma leen. pour déglu leen man daal bu ngeen ko bëggee cadré. Ah. toog naa bu ngeen ko mën a cadré. waaw euh, non li ma la wax laay def de dama ne. Ah. bu ngeen ko mënee cadré. Hmm. ans du ma toog ngeen ma kàll kàlle. Ah. non non non wuute wuute c'est mon de parole. sinon je ci foofu lañ bëgg a ñëw. non non ngeen di wax ça ne. du hmm. tous. waroon ngeen a. doo ko déglu bu posé la question je vais aller plus loin. Ah. vous devrez même vous devez même avoir honte de prononcer ces ces inepties là. Mmh. sëñ Ahmed dañu bëgg a ñëw ak yow ci ci benn côté comme li nga wax yaay sunu gan donc gan <laughs> euh, dañ koy laaj pour nit ñi xam. am na loo xam ne fekke nga ko euh, ci euh, régime yi nga xam ne wax nga ko sànq wax président yi fi jot a jaar muy loo xam ne expérience la boo ci dund. man ci la mbir Guèye la voilà la mbir kuréel Guèye nga xam ne ñu bari ñu ngi évoqué une crise fi ñu toll tey ci réew mi ñu bari di évoqué une crise bi laaloo leen ko xam ba teew la leen ko jegewoo leen léegi lan mooy crise bi loolu laa la bëggoon laaj réellement crise bi mhm. mooy est-ce que Macky mi fixé yi fi le 24 bëgg na élection yi am ci date boobu. voilà est-ce que bëgg na ko wala bëgg ko bu ko bëggee xam nañ ni mu koy doxale bu bëggul xam nañ li koy doxale nañu jàpp ne bugg élection yi am. Mhm. ci le 24. bëggul mu am. nañu jàpp ne hypothèse d'école boog. ci français hypothèse waaw mhm. bëggul mu am. na yi carte la mën a exhiber. Mhm. bokk na ci une euh, démission quasi collective de certains candidatons. désistement maanaam. ñu désister. yow déggee ko nu la neex rek. Mhm. j'ai dit quand j'ai dit démission. Ouais. et c'est du synonyme non. et vous préférez l'un que l'autre. prenez mhm. celui que vous voulez. pour vous-même. oui xam nga man sama baay dugaluma école. Hmm. waaye maa leen dàq français. léegi euh, loolu defal naa ko rek non bàyyi ma ma wax li hmm, may hmm, wax. bien sûr léegi bu buggee def lan lay def. mën na wax euh, les candidatons ne leen démissionné leen collectivement kooku dana ko may benn porox ndoll sans compter. que gars yi daw nar a dem ci mboolem tali Sénégal yi fi amul tali probabilité la mm-hmm. pour que mu am ci ku décédé par accident par ceci ou cela te loolu dafay remettre tout en cause dégg nga donc les probabilités de report des élections n'est pas nul dégg ba fi ñu nii n'est pas nul mm-hmm. si on na fait que des hypothèses. dégg nga n'est pas nul su fekkee ne xam nañu ne li taxoon moo wax 27 mars da ngeen ne foog ne loolu pour lu neex Macky Sall la lan la koy jëriñ amee ñu sa ko wax kenn ah, ban valeur la loolu am amul benn valeur du day def li ko neex mais dama doon signaler ne am na probabilité. d'instabilité qui peuvent se succéder dañu nekk devant l'impossibilité d'une présidentielle dans dix jours. subhanallah. subhanallah walhamdulilah yëpp du tere loolu mën naa nekk mën naa nekk subhanallah dara vous vous amusez à mettre euh, Dieu dans des choses plutôt sataniques qu'autre chose. laissez mm-hmm. Dieu là où li ko César waxoon. laissez à Dieu ce qui est dégg nga lii yàllaa leen ko séddee. seen sunguf la dox leen ko dox leen nit. dama ne. proba su fekkee ne wate nañu le 24 il y de des risques de stabilité ci réew mi qui iront au-delà de 2027. te déglul programme bi garaaw bi nga xam ne dañu wax ne euh, nit yi Pastef yi euh, ancien Pastef di Sonko. moom la ñu proposé mooy ñoom itam ñu sàcc constitution bi ne dañuy créer benn poste de vice président boo xam ne su fekkee ne joomaay mooy président kële nekk président daf koy euh, jox toutes les prérogatives euh, daf koy jox ay pouvar ba mu am tous les prérogatives d'un président xam nga loolu mooy li ñu bañal mag ki doo fi teg ko la neex moom doo fi teg keneen ñu ne waaw Macky daf fi teg euh, euh, keneen ñu ne déet ji man jusqu'à bërki démb Amadou Sall moo doon sama candidat préféré. Amadou Ba Amadou Ba moo nekkoon sama candidat préféré mais depuis bërki démb ba tey maa ngi koy uyuwuma maa ngi koy euh, rappelé wu ma yónnee naa ko ay message mën naa la ko woon tontu wu te man nag je suis pas fort en ça man boo ma ignoré je t'ignore lu dëgg soxla mu ci ñoom benn dërëm. lu cadre réew sama nit la woon démb xamoon naa ko ku am compétence la ku jub la ku euh, réglé la Sénégalais bu réglé sax dafa jafe mais cent franc boobu soxla nañ ko. so un nekk ci kii ñu lay annoncé ay yu yu tiital nit nga ne tegg teggaaral ne teg. vraiment am na ay avantages nekk na fait il fait face euh, à la conspiration des médiocres médiocre foo ko fekk rek day jéem a tuur cere ci nga xam ne il a son excellence léegi nga gis yi fekk duñu lébu sax di niru niru ay libu ndax ki ndax kii dafa am xorom macha allah te amuñ xorom ñu bëgg a wut xorom <laughs> loolu rek la donc pour vous dire. Euh, affaire bi euh, Macky Sall garde encore des atouts pour chambouler le jeu. mën na tuuti sekkee ne bët euh, sekkee ne bëloot la mën na jékki-jékki ne faux jeu te faux jeu rek kii bi day yàqu. day yàqu waaw mais su fekkee ne moom bëgg na ko. dafay accepter benn équation boo xam ne candidat am dafay du dem sax deuxième tour mën na nekk lii jëriñ nag du Ba mooy ñëpp xam ne moom Macky feral na ko te moom bëggatula naam loolu bu amee ñu ngi koy xamee ci lan mu ne ah wax dëgg yàlla nag président son président la am na décision yoo xam ne sant ma ko moo def ko malgré moi waaye bu doon may président du ma ko def exemple la parce que euh, liir moom kenn du ko dénk dara il faut que mu fer il faut que Macky feral Amadou Ba il faut que Amadou Ba nangoo fer voilà euh, léegi nag li nga xam ne moom lay mujje ci côté boobu mooy les élections du 24 mars am na une marge de pour cent pour que ça n'ait pas ma leen wax bu amee du am yàlla tere su fekkee ne yaa un défunt sur les dix neuf waaw waaw subhanallah walhamdulillah wala ilaha tere na yàlla di rey heure bu ko neexee wala nga ne yàlla moom il e da nga foog ne léegi code électoral bi euh, yàlla dominé wu ko du ko neex mu doxal yàlla rek moo mën a def léegi loo xam ne conseil constitutionnel mënu ci dara. Hmm. dee leen ko ci bàyyi xel. waaw alors léegi nag ma bàyyi foofu mu demaat. waaw léegi kay dañoo yegsi su dañoo yegsi ci ci ci ci terminus émission bi mhm. alors boo dañ lay bàyyi rek nga nga nga hmm? nga nga tàggatoo waaye ba am na ah. yoo xam ne xëy na buñ ci ñëwaatee moo tax bëggoon ko laaj euh, solution parce que joxe nañ hypothèse hmm. mais euh, yow en tant que ku nga xam ne am euh, nga am nga ci vécu que même ci politique gu Sénégal ak yooyu ak ay président surtout ba lan nga xalaat que ni moo war a nekk une solution pour sortir euh, ci lii nga xam ne moom la ñu nekk te joxe nga benn hypothèse que ni am na lu tolloog 1 pour cent en tout cas ci luñ mën a kii pour aéroport ak yooyu loo xalaat. waaw man daal li ma ca xam. waay chirurgien bu sa tànk ba pare waroo jóg ne ba xër ñett ne yaa ngi rawante ji foog nga bàyyi tànk bi le tànk mu wér ba mën a euh, soox di dox ndànk ba plus tard lay mën a dawi réew mii dafa jóge ci situation. boo xam ne depuis deux mille vingt et ba léegi ñu ngi en état de l'alerte de facto ay junney nit ñàkk nañ fi seeni oto